ñaar ñii la sama borom dogal ñoo wàcc ci liggéeyu Serigne Touba bi nga xam ne ci Touba ci kanam ñoo ngi ko doon def xandoor nag bu demee ci waar moom wàcc na ñoo ñaan ngeen ñaanal leen bu baax a baax waaw moom yaakaaroon na lool te am nañ yaakaar ñoom lool nag wax dëgg yàlla ndax liggéey boo xamante ne fay ñu la ci ñu la ci dara nga dem bi ci liggéeyal Serigne Touba di ko ñaqal ba sa ba ba ba sa ba ba wàcc sab liggéey yaakaar naa ni kooku moom ku jar a rafet njort la ngeen fasal leen bu baax baax moom yëpp.